mën ngeen seetaan itam émission bu leen neex wala bi ngeen raté mën ngeen koo seetaan naat ci application bi application Leral TV mooy télé ci poche. rajo Leral 96.1 Dakar 100.4 Kaolack 87.8 Mbacké Touba 93.1 Ziguinchor rajo Leral encore plus proche de l'info. dama ne télé bi ngeen doon xaar أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضا الله الخالد عن جميع المؤمنين mbokku euh, téléspectateur u Leral TV ñu ngi leen di euh, nuyu di leen ziara di leen euh, ndokkeel ci bis bu tedd bi nga xam ne moom mooy bisu aljuma ngeen gënoon miin nag heure émission bi ci 18 heures ba 19h waaye nag euh, la défaillance technique est plus ancienne que la technique elle-même euh, on avait un peu de souci technique waaye alhamdulilah Dieu merci euh, dellu siwaat nañ ci li nga xam ne moom mooy seen émission bi nga xam ni yéen a ngi koy xaar saa su nekk muy jeunesse et religion Euh, di sant mbokk yëpp di leen euh, gërëm ci euh, wax dëgg yàlla émission bi ñu génn gis nañu retours yi gis nañu partage yi gis nañu appréciation yi yi nga xam ni wax dëgg yàlla lépp rek ça va dans le sens ci vouloir mieux vulgariser notre notre religion ñu leen ci sant di leen ci di leen ci gërëm bu baax a baax a baax ku mel ni rek ki nga xam ni moom mooy borom koom Euh, moom wax dëgg yàlla saa su nekk rek saa bu duggee ñi ngi gis ni moom li njëkk nekk yitteem rek moom mooy euh, mu fexe ba euh, partager li nga xam ni moom mooy jëm ci wàllu émission yi ak ki nga xam ni moom mooy Zora Alhaaj Mansour moom itamit ñi koy jaajëfal bu baax a baax a baax tey nag comme niñ leen ko diggee woon muy sangu set la ñu ñëw pour waxtaanee ko. Euh, sangu set nag nekk na loo xam ni euh, ñu ci baree bari euh, léegi-léegi danañ ci faral di def ay njuumte ñu ci bari dafa nekk seen problème loolu nag lañ fas yéene ànd ak yéen rek ci li nga xam ni moom moo jëm ci démonstration illustrative comme ni ñu ko baaxoo di def comme jeunesse et religion la ñu wax nag tey àjjuma la mais àjjuma dafa am loo xam ni Euh, dafa am particularité bi ci nekk jullit bi àjjuma lan mooy li ko war ñu dem rek xool suñu premier euh, tableau daal di euh, ñëw ci li nga xam ni moom mooy daara ji tey bu ñu xoolee gis nañu tableau bi ni ngeen ko gisee nii yaa ngi gis en vert muy li ñuy tuddee al jumaa kon mi ngi wane ni ci bisu àjjuma la ñu nekk léegi al jumaa bi nag dafa am loo xam ni mooy liñ ci xaaree jullit bi jullit bi lan la ñu koy xaaree moom mooy lan mooy bisu àjjuma dafa am aadab am ay sunan dafa am ay teggin yoo xam ni moom la ñu euh, xaaree ki nga xam ni moom mooy euh, jullit bi bi ci njëkk mooy bisu àjjuma sopp nañ ci jullit bi muy sol euh, li gën a rafet ci ay yéreem donc àjjuma bu jotee képp kuy jullit war nañu mën a gis ci moom taar kon moo tax gis nga lubs ahsana thiyaab dafa war a sol ay yére yoo xam ni euh, yére yi gën a taaru ci ay yéreem la loolu tamit ñu bàyyi ci xel baax a baax waaye de préférence nag su amee yére bu weex moom moo gën loolu tamit ñu bàyyi ci xel beneen bi aussi tamit mooy tahdibu char euh, mooy aussi tamit jullit bi bisu àjjuma bu jotee na fexe ba defaraat kawaram kawar bi daal di sell daal di set daal di neex gis loolu tamit euh, dafay dellu rek ci mbokk yi nga xam ne léegi-léegi wax dëgg yàlla nga gis euh, <laughs> ku mel ni Alioune Badara Sakho moom bañ na lànk na ni moom karawam bi moom du ko toppatoo waaye nag war na mën di ko def shampoing di ci def euh, yi nga xam ne rek day tax karaw gi di gën a rafet di gën a yànj loolu tamit day tax dafay gën a neex a xool ndax jullit dafa war a set dafa war a sell beneen bi mooy al ixtisaal tatayub sopp nañ tamit ci bisu àjjuma jullit bi aussi tamit muy euh, sangu comme li ñuy waaja a jàng si léegi muy sangu set mais en même temps aussi tamit muy daal di euh, parfumé wu di tuuro euh, li nga xam ne moom mooy parfum mais bisu àjjuma ba léegi am na ci benn waxtu woo xam ni waxtu wu ñuy nangoo ñaan la waxtu la woo xam ni loo ci ñaan rek suñu borom daf la koy nangul kon nag waxtu boobu moom mooy ban waxtu bokk na ci boroom xam-xam yi li ñu wax mooy waxtu woo xam ni li commencé diggante tàkkusaan ba timis bokk na ci li boroom xam-xam yi dëppoo ne waxtu woowu la moo tax bu ñu delloo ci sunu mbokku tijaani dañuy gis ni waxtu woowu bu jotee moo tax ngeen di dégg ci jàkka yi ñuy def wazifa di def li nga xam ne moom mooy xadratul jumaa commencé ko bu ñu tàkkusaan ba noppi jëm ba fi ñuy eggee timis parce que tamit boroom xam yi dañoo dëppoo ci ne waxtu woowu waxtu nangu ñaan la ndaw tamit ñu bàyyi ci xel baax a baax beneen bi mooy an naafila baax baada salaat bisu àjjuma aussi tamit bëgg nañ ci jullit bi su jullee ba noppi mu daal di ciy teg ay naafila naafila yi nag dafay nekk entre deux et quatre rakka boobu tamit euh, jar na bàyyi xel mbokk yi ñu dellu ci euh, beneen loo xamante ne aussi tamit euh, dafay concerné jullit bi ci bisu àjjuma muy lii nga gis ko nii euh, nga xam ni nopp bi ngay séen nii mooy dañoo sopp ci ki nga xam ni moom mooy mu tuddati kii dem juma bu imaam di xutba dañoo bëgg ci moom aussi tamit mu saxoo noppi mu ngi nii moo tax nga gis nopp bi nii mais malheureusement da gis ñoo xam ni imaam bi di xutba buñ leen woowee téléphone ñu wuyu waaye xamal ni bu imaam di xutba soo suñ la woowee téléphone nga wuyu xamal ni yow sa jumaa jooju yow bokkatoo ci jumaa ji sa jumaa boobu dafay daal di euh, nul waaye beneen bi tamit mooy dañ ne ki nga dendal sax suy wax nga ne ko noppil yow itam sa jumaa foofu day yàqu kon ku lépp ku dem jumaa ba imaam di xutba fexeel ba na nga noppi ndax xutba boobu noonu dafa bokk ci biir julli bi moo remplacé selon ci yenn boroom xam-xam yi muy yeneen ñaari rakka yi nga daan julli tisbaar ci bu budul ajjuma beneen bi aussi tamit mooy euh, imaam bu yegsi tamit sopp nañ ci bu imaam di yegsi di yéeg ci li nga xam ne moom mooy ci kaw minbar bi moment bi imaam bi ñëw tamit nga dugal fa sa soxla dugal fa aussi tamit sa sa ñaan loolu am na solo bisu àjjuma ba léegi itam nga jàng suratul kahfi suratul kahfi moom itamit baax na bisu àjjuma nga di ko jàng ndax yonente bi salaa sallam moom moo ko digle woon beneen bi tamit mooy teel a génn wal alxuruj mubakiran wa dhihab mashian nga teel a génn dem ci jumaa ji dem ci jumaa ji nga teel a génn dem ndax soo teelee génn dem ci jumaa ji day tax euh, euh, afwan say euh, point di daal di di gën di di di yokku beneen bi mooy asalaatu ala nabi bisu àjjuma aussi tamit euh, sopp nañ ci nga bari looy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon bisu àjjuma nañu bari lu ñuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bisu àjjuma aussi tamit gis ngeen ko nii soccu moom moo nekk nii nañuy bara baril di soccu ci bisu àjjuma donc kon gis ngeen mbokk yi ci tënk wax nañ la yow jullit bi yow ndaw li yow jeune musulman bi u musulman lii mooy yi nga xam ni moom lañ la recommander pour bisu àjjuma loo ci mën ci sa kem kàttan rek nga daal di koy matal dafa nekk lu amaam am solo mbokk yi di euh, sant itam ñuy euh, suivre à travers euh, Facebook bi ak YouTube beeg yëpp di leen ñaan aussi tamit ñu gën a yaatal partager li nga xam ne moom mooy direct bi. ate ñu dem ci beneen tableau bi daal di dugg nag ci li but du sujet. léegi nag yii mooy lii suñu ko waxee mooy liy waral sangu d'abord sangu set moom mooy lan sangu set bu ñu ko waxee mooy nga matale sa yaram bi raxas ko ba mu set sa yaram bi fépp tooy mu ànd ak yéene waaye yéene boo xam ne dangay nga yëkkati toj-toj bi nekk ci yow muy toj-toj bi gën a mag toj-toj bi mën na nekk muy janaba janaba suñ ko waxee nag mooy nit ki nga xam ni góor ak jigéen bu ñu séqee ba sëy ba noppi suñu sëyee ba noppi moo xam seen mani yu dafa génn wala seen mani yu génnul bu boobaa ñoom ñaar ñépp dafay war ci ñoom kenn ku ci nekk mu daldi sangu farata wala ñuy wax sangu set ak boo ci mën a wax kon lii koy waral nag bokk na ci muy xurujul mani bi laddatin mooy nga génne mani yu may mani yu bi buy génn muy sperme bi dafay génn génn boo xam ne dafay nekk avec jouissance maanaam yëg-yëg bànneex boo xam ni euh, mani yu nag la plupart li koy génne moom mooy sëy muy rapport sexuel sëy bu doxee ci diggante góor ak jigéen ñu génne mani yu Euh, dinañ ñëw ci détails yi ndax nit dina am ci beneen circonstance bu muy génnee mani yu waaye fa mani yu ba di génnee muy mani yu buñ ko waxee ndoxu mani yu nag ndox la moo xam ni ndox mu far la ndox mi dafa xaw a am xetu mooñ wala xetu euh, euh, tàndarma loolu la xet gi waaye dafa nekk ndox moo xam ne ndox mu far la ndox mi buy génn nag dafay génn ci ak doole ndax xuliqa min ma in daafiq yàlla moo ko wax ci alquran ni ndox moomu di génn muy man yu góor am ko jigéen am ko ndox mi suy génn dafay génn avec force force boobu muy génnee nag moom mooy yetadafaq xuliqa min ma in daafiq yàlla moo ne maa bind doomu aadama ci ndox moomu te ndox moomu buy génn dafay jeñu dafay jeñu moom mooy dafay génn avec force kon loolu moom mooy xurujul mani yu bi lazzatin bu ñu nee mani yu bu génn bu ànd ak bànneex kon da nga ciy dégg kon ni sa mani yu su génnee te àndul ak bànneex kon doo sangu bu boobaa nooy def da ngay dem nga raxas sa awra fi nga xam ni fala la euh, mani yu ba daal di génnee tout simplement beneen bi mooy aljimaaxu xam nga fi dama wax rek mani yu bu génn mais aljimaaxu ñu ko waxee moom mooy lan moom mooy sëy muy rapport sexuel moom moo nekk nii ngeen koy gis euh, ci euh, couleur meuf bi gis nga ko aljimaaw wax naa xurujul mani bi ladatin nga génnee bànneex maanaam mani yu ci bànneex muy sperme deuxième bi gis nga aljimaaw muy lëkkaloo rapport sexuel ci biir rapport sexuel bi saa boo defee rapport sexuel sa mani yu génn naa génnul da ngay sangu ji beneen bi mooy Euh, <coughs> mawtul euh, muslim illa shahidul maarika donc jullit bu faatoo dafa baax ci ñu sang ko te façon bi ñu koy sangee rek dafa mel ni comme façon bi ñuy sangoo set muy jullit bu faatu waaye illa shahidul maarika bu fekkee ki nga xam ne nag moom dafa doon xeex ci yoonu lislaam ci biir xeex bi mu daal di ciy daanu ci toolu xare bu boobaa kooku euh, kenn du ko jarul ñu koy sang ndax moom set na ba noppi beneen bi mooy islaamul kaafir hmm? islaamul kaafir mooy koo xam ne nekkul woon ci diine lislaam mu tuub dugg ci lislaam fi mu tuubee dugg ci lislaam nag dañ koy exiger à ce que moom mu sangu bu sangoo nag loolu moom mooy nekk Euh, li ñuy tuddee dafa mel ni rek attestation la lay nekk ci moom ginnaaw bi mu waxee ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah nangu baatu seede bi nangul lislaam ak i attem buy dugg ci lislaam bu boobaa moom itamit dafay sangu muy islaamul kaafir ñi ci ndokkeel suñu mbokkum jullit mu dooleeku ci lislaam muy ki ñuy wax Patrick mbomaa ñu xamee ko woon ci noonu léegi nag désormais tudd na Abdul Jalil Mboma muy muy joueur camerounais boobu nga xam ni commentateur la fële ci Canal Plus ci match yi dangeen koy euh, gis ñu bari xam nañu ko moom tuub na dugg ci lislaam comme tey ci kaawam ci cas de figure bu mel noonu kon Patrice Mboma moomu tey pour ñu nangul ko li nga xamante ni moom mooy mu dugg ci biir lislaam balaa muy def dara li ñu koy njëkk a wax moom mooy dafa war a sangu farata léegi nag bu fekkee kaawu comme par exemple Patrice Mboma tey dugg na ci diine la lay jàngee sangu set ñu ne bu boobaa dañ koy jàngal jàngal bi mooy nañ ko defal théorie ne kenn taxaw ci kanamam ne ko nii la ñuy sangoo set fii ngay commencé fii ak fii bu fekkee ne nag moom buñ ko ko defalee théorie moom mënu ko comprendre après nag ñu daal di koy bàyyi ba mu dugg foo xamante ni fa lay sangoo ñu koy dicter ne ko commencé fii raxasal fii defal nii defal nii ci sutura bu fekkee ne nag am na ko xam ne peut-être que am na soxna soo xam ne soxnaam jullit la bu boobaa mook soxna si mën nañoo duggandoo ci biir toilette bi di sangoondoo wala mu dugg soxna si jàppale ko mu sangu loolu lislaam nangu na ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na sangoondoo ak ay soxnaam ci li nga xam ne moom mooy ci benn euh, ndab kon loolu ci cas mel noonu euh, mu ngi nii ngeen koy gis patrimoine moment désormais mu ngi tudd Abdul Jalil mboma kon yàlla na ko yàlla sàmm yàlla dëgëral ko gën a dëgëral li nga xam ne moom mooy pas-pasam ci biir diine kon Patrice Mboma kon expliqué naa leen kon moom tey dugg na ci suñu biir sujet ndax moom nekkul woon jullit tey nekk na jullit kon moom dafa war a sangu set kon expliqué naa leen ci yan anam lañ ko mën a jàngalee mu sangu ak ci yan anam lay jaaree ba sangu ayca euh, joxaat ma table bi jéego euh, ginnaaw nag. Euh, ki dugg génnoon ki nekkul ci diine daal di dugg ci diine bu sangoo ba pare am na keneen koo xam ne aussi tamit euh, war na sangu set sangu set war na ko muy inqitaau xay xaydi wan nifaas jigéen bi nga xam ne dafa gis règle ba reglam dagg bu boobaa dafay sangu muy jigéen bi nekk ci période menstruelle am ñu koy wax gis mbaax bu jigéen ji gisee mbaax ba dagg deret bi bu daggee dafay daal di sangu bu sangoo nag dafay continuer li nga xam ne moom mooy ay jaamu yàllaam beneen bi mooy wan nifaas ak deretu wasin ki nga xam ne dafa jur doom am na deret boo xam ne moom mooy génn di kule ci moom deret boobu noonu saabu daggee itam moom mujibaatul li gis nga sangu dafay mujje war ci moom kon wax naa leen kenn ku ci nekk eh, ñi war a sangu ñu ngi nii ñi war a sangu mujibaatul xusl ñi sangu war ci ñoom ma kii maniyoom génn ci bànneex kii sëy maanaam rapport sexuel entre góor ak jigéen euh, jullit bi nga xamante ni dafa génn àdduna dañ ko war a sang kii nekkul woon jullit dugg ci lislaam dafa war a sangu ki nga xam ne deretu reglam dafa daal di dog dafa war a sangu ki deretu wasinam dog dafa war a sangu li nag ñi nekk ak seen soxna yi war nañ ko xam muy bu fekkee ni yow borom kër nga nekk sa soxna war nga mën a xam pour mën ko orienter bu fekkee ni moom xamul ndax am ci ñoo xamante ni dañuy demander est-ce que jigéen bu tollee ci gis mbaax mën nañu seeg ñoom am na ñu koy def waaye loolu loraange yu bari mi ngi ci mën na la indil ay maladies incurables ay feebar yoo xam ni euh, feebar chronique lay nekk feebar yoo xam ni pour mu wér dafay nekk problème kon médecins yi sax dëppoo ci nañ ñi ni ci biir euh, nit bu génnee euh, ba tolloo maanaam jigéen bu tolloo ci gis mbaax deret boobu noonu nga di ci sëy ak moom bu dul dara sax yaa ngi koy lor ndax dèjà jigéen bu gisee mbaax dafay yomba tayal waaye dafay bari sax maanaam tey mu énervé wu dafay mel ni lu xat donc nag yow bu foofu noonu ak yow tey loo topp topp topp topp sa bànneex war nga ko mën a muñal diiraawu li nga xam ne tey ci la gis mbaaxam mën na xam day nekk ci cinq wala 6 jours ba ci 9 jours nga muñal ko bis yooyu mais l'islam may na la. sa soxna bi nga xamante ni dafa tollu ci période mu gis mbaax lislaam may na la li commencé ci boppam ba ci tànk yi nga bànneexu ci waaye fenn fenn rek la la lislaam wax ni bul fa yegg muy ci li commencé ci jumbax bi ba ci fii muy li jëm ci partie intime muy ci euh, awraam bul ko laal moo tax nag foofu bu fekkee da nekk góor boo xam ni peut-être que amul maîtrise ci yow ndax day dal ay góor mën nga tëdd ak sa soxna sa xel nekk ci moom waaye bu sa xel nekkee ci moom foofu lan la la lislaam sant dafa ne foowal ak moom maanaam mën nga euh, jaxasoo ak moom di foo ak moom moo xam ci caresse la moo xam ci fóon la ak lu mu mën a doon rek mën nga ko séq ak moom mais dañ na la bul yegg ci li nga xam ne moom mooy ci awraam parce que euh, wala taqrabuhunna na yatuhurna alquran dafa ni ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض yàlla moo wax ci alquran ni jigéen ñi bu ñu tollee ci période gis seen mbaax na leen may tuuti écart écart bi mooy yàlla day bañ ñu sëy ñoom ci biir mbaax moom kon alquran moom moo ko wax waaye nag nee nag euh, fa iza tataharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah yàlla nee na bu ñu dañee nag maanaam seen règle bu jeexee ba dagg ba ñu sangu ji yàlla nee na foofu mën ngeen sëy ak ñoom saa bu leen neexee ak fu mu leen neexee foofu nag lu jara taxaw la li jara taxaw mooy am na ñoo xam ne dañ ne foofu xaysu amarakumullah yàlla nee na nu mu leen neexee ak fu mu leen neexee attention attention ndax am na ñuy jaaree foofu ni kon dagan na ngay sëy ak sa soxna ci gannaaw question bu jar leeral ndax nit mën na sëy ak soxnaam ci gannaaw aha kay waaye lan mooy gannaaw mooy dañoo lislaam dafa bañ góor jël awraam dugal ko ci jigéen fi muy demee wanak ci gannaawam fi muy demee wanak loolu lañuy tuddee euh, sodomiser hmm? loolu lislaam daf ko tere yonent bi sallallahu alayhi daf ko tere ndax am na benn waay saxaaba bu musa ñëw laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ndax mën naa dikkee sama soxna ci gannaaw mën nga sëy ak sa soxna ci position boo xam ne ci gannaawam ngay nekk di sëy ak moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko aqbil wa adbir waaw ah, ngeen baal ñu nag waaye nag dafa am ku ñëwoon di laaj ci wàllu diine sayyidatuna Aïcha dafa doon wax ni ni ama nisaau nisaau l ansaar mu ne maa yamnaahunna alxayaa an yatafaqahna fi diin sayyidatuna Aïcha nee na kenn gënul baax jigéenu waa ansaar ñu ne ko lu tax mu ne ndax ay jigéen lañ yoo xam ni kersa musu leen tere ci ñuy laaj ngir xam seen diine te pourtant ay jigéen lañu woon mais question amul woon tabu ci ñoom comme tey yow mi parent muy papa yaay yow mi nga xamante ni yaa am ay doom yu góor ak doom yu jigéen bul chercher barrière sa diggante ak ñoom ubbi leen ay buntu discussion ubbi leen ay buntu échange ci seen wàllu diine waaye bul rusa waxtaan ak sa njaboot ci lu mel noonu kon war nga mën a toog di waxtaan ak ñoom ci sujet yu mel noonu mais fii dañ ko nar a dañ ko jàppee tabu parce que boo koy wax sax daanaka mën nañ la dëkkal ci foo xamante ni dëkkoo fa donc c'est très important euh, mbokk yi loolu tamit ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax kon fi ñu war a sëy ak soxna mooy fi awraam nekk mooy fi doom di génnee foofu rekk la l'islam autorisé ñu sëy fa ak jigéen lu dul foofu feneen foofu sëy def nga loo xam ni lu ñaaw la def nga loo xam ni lu xaram la mbokk yi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax kon yeneen bi saa salaam daf koo digal ni ko dikkee ko kanam dikkee ko gannaaw waaye nag wattandikul fi muy demee duus fi muy demee wanag foofu moom kenn autorisé wu fa nit mu di fa sëy waaye dem nañ ba toll nañ ci mbon ba yegg foofu euh, am na ñoo xam ne il préfère ñuy sëy ak seen soxna foofu képp kuy jigéen sa borom kër loo ko bëgg-bëgg sa borom kër loo ko namm namm ci lal buum la mës yóbbu parce que tey yi ñuy teg euh, c'est des foutaises nga gis jigéen boo xamante ne danaan man foofu laay sentiré sama bopp nga gis góor boo xamante ne danaan foofu rek laa mën a sentiré sama bopp yow yaa gën a xam yàlla mi la bind yàlla mi bind def la mas sexe jox la sexe masculin kee mu bind ko def ko sexe féminin muy góor ak jigéen yàlla mi créé kay ba xam ni fii muy awra góor fii la war a dugg ci awra jigéen yàlla mi mi ko xam yow yaa yaa gën a xam yàlla kon nañu bàyyi euh, di topp li nga xamante ni moom mooy sunu euh, bëgg-bëgg aca ñu wéel kon fii beneen bi aussi tamit mooy kan moo war a egg foo xam ne sangu day nekk obligation ci moom fii boo xoolee ci tableau bi wa kullu taklifin bi charte l aqli ma al buluugi bi damin aw xamli aw bi maniyin aw bi inbaati shaar aw bi thamaani ashratin xawlan zahar boo demee ci téere bi téere bi ibnu ashir la téere boo xam ne la téere bu mata jàng la ndax matale na ci yu baree bari kon ki war a sangu set maanaam dama ci namm mooy sa doom dafa toll foo xam ne gisagul mbaax léegi nag fan la nit di majeur ndax ku majeurul sangu set du farata ci moom tey boo nekkee mag nga dem sëy ak xale boo xamante ni matagul maanaam nekkagul ku majeur kon xale boobu kenn du ko exiger mu sangu xale boobu dañoo sopp ci moom rek mu sangu ndax amagul benn obligation bu tegu ci kawam ubbeeguñ bunt ay bàkkaaram ubbeeguñ ay buntu ay euh, digal ak ak ndax yonent bi saa sallam nee na yëkkati nañ xalima bi ci kii nelaw ba ba muy yeewu kii tàggalikook sagom ba xelam di ñëwaat ak ci ki nga xamante ni eggagul ci majeur maanaam matagul majeuragul ba lislaam di teg ci moom li nga xam ni moom mooy ay daan kon fii mu ne bi ci njëkk charte yi mooy na nekk koo xam ni ku am xel lay doon kon ki amul xel lislaam waxul ak moom mu nekk koo xam ni tamit egg na ci li ñuy tuddee buluur muy age de la puberté toll na foo xam ni bu dee jigéen commencé na gis règle wala commencé na di gént ba gis li nga xamante ni moom mooy ay euh, euh, maanaam ndox muy maniyu wala gis nga aw bi tamit aw bi xamlin ki nga xam ne nag dem na ba ëmb ki ëmb kay donte sax eggagul nit ñi xool nañ ñu ni kat eggagul ci yenn age yi ñuy njorte ci nit mu ëmb bu boobaa dañuy jàpp ni ku la ndax ku dem ba mën ëmb doom ça montre ni kooku majeur na aw bi mani yin wala mu génne mani yu mani yu ku majeurul du ko génne ku majeurul du am ndox moom ndox moomu du génne ci moom muy mani yu aw bi in baati shaar wala nga sax karaw karaw gi nag karaw gi karaw bopp bokk ci mbokk yi ci tënk yow miy déglu yow mi jàpp ni foog nga am vingt ans pour majeur wala faaw nga am dix-huit ans pour majeur déedéet l'islam waxul loolu l'islam defa ni lu weesu sa bopp karawu bopp bii beneen karaw bu feeñ ci yow beneen karaw bu feeñ ci yow rekk majeur nga waaw su ma nee karawu bopp nit nag xam na fi karaw baaxoo sax ñaar ginnaaw fii ci bopp karaw fan lay saxee poqataan ak ci li nga xam ni moom mooy ci suufi jumax muy ci nëq bi ñaar yooyu nag bu feeñee ci yow am nga 18 ans amoo 18 ans lislaam te considère comme majeur kon loolu jar na bàyyi xel kon gis nga lii tax màndarga yi tax ñu xam ni kii kat yegg na fi mu war a sangoo set mooy gis nga ko mu ngi nii il faut que mu toll ci ngir génnee règle waaye aussi tamit faw bu fekkee ëmm na soxlaatu ñu kii waaye gis nga fii mi ngi ko jeexalee aw bi thamaani ashratin xawlan zahar wala mu nekk ci 18 ans bu fekkee ne nag am na 16 ans gisagul karaw nëq gisagul karaw poqotaan am 17 ans gisagul karaw nëq gisagul karaw poqotaan waaye nag bu boobaa dañ naan nañ ko muñal ba 18 ans bu yeggee ci 18 ans nag mu ñàkk gis karaw ak ñàkk gis mani yoog yépp ci am bu boobaa lislaam dana ko nag ku am 18 ans donte mandarga yi ñu wax feeñul ci yow bu boobaa dangay ngay lislaam daf lay jàppeeku majeur ay ca ñu dem ay jox ma beneen kii bi jeego bi ci topp mhm. waaw kay mu ngi noonu léegi mu ñëw di ñu expliquer faratay sangu faratay sangu set hmm? faratay sangu gis nga furudul xusli qasdun yuxtadar fawrun umumu dalki taxlilu shaar فتابع الخفية أو الخفية مثل الركبتين والإبط والرفغ وبين الأليتين وصل لما عصر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل gis nga ci ñetti vers yi expliqué na la lan mooy faratay sangu set mu ne bi ci njëkk mooy qasdun yuxtadar da danga war a yéene balaa ngay dugg ci biir sangu set moo tax gis nga ko mu ngi nii yan wi raf al xadas al akbar wastibaaxata mamnuin aw il fardi kal wudu yéene bi dangay yéene ni balaa ngay sangu set sa yéene waxoon nañ fi keroog ci sangu euh, ci jàpp ni yéene kenn du ko wax mais dangay ngay fas ci sa xol ni dafa am xadasul akbar toj toj bu mag booy yëkkati bi gën a mag ndax nag li koy waral mooy mani yu moom fa mu génnee rek xamal ne lu rëy rëy la lu rëy rëy moom moo tax moo koy génnee gis nga nga sàkkoo dagan lu liñ la tere woon lan lañ la tere woon dañ ne soo amee janaaba bul julli mënoo ci julli fekk tàggalikoo ak janaaba bi mënoo ci euh, def beneen xeetu jaamu yàlla gis nga comme jàpp rek léegi mu ne la fawrun mooy toftale méngale muy nga toftale ko benn par benn bu ñu ñëwee ci biir sangu set bi di nga xam ni fii la ñuy commencé bii moo ci topp ba fi mu jeexee loolu la ñuy tuddee alfawru beneen bi ak dalku ci biir sangu set aussi tamit farata la ci biir sangu set ngay bobb sa yaram bi ba mu set ba sa yaram bi yëpp daal di tooy gis nga jamii al badan amul fooy bàyyi gis nga boo sangoo ba pare nga bàyyi benn tupp tupp si sa yaram bu tooyul boobaa sangu bi du baax beneen bi taxliilu shaaril jasad sawaun kaana kasifan aw xafifan bu fekkee ni tamit danga ame karaw karaw gu bari ci bopp la ci fu mu mën a doon ci poqataan yi ci nëq bi na nga ci dëxëñ ndox mi bomb ko ba mu laal der bi loolu mooy li nga xam ni moom mooy loolu farata lay doon ci biir sangu kon loolu tamit ñu bàyyi ci xel baax a baax waaye aussi tamit li jëm ci côté genou yi nii ci euh, zunub bi bu lemoo nii fii diggante yii nii lem-lem yi de mën na am ay ras-ras da nga ko war a raxas ba mu set ak li jëm ci fi ngay toogee fii diggante yii nii fi ngay toogee boo lemee sa tànk bi nii yii nii yépp dafa war a tooy xib kon loolu tamit dafa bokk ci farata mbokk yi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax waaye beneen bi tamit mooy poqotaan yi ah yi esel yi dafa war tooy xëpp dafa war a set wécc ci biir sangu bi waaye beneen bi mooy damay sangu ci biir sangu bi sama loxo bu fekkee ni damaa gàtt wala sama loxo yi dañoo cëkk ba sama ñaari loxo yi mënuñoo laalante léegi comment faire ñu ne léegi Alioune Badara Sakho waxuñu ne nag nga nga nga nga dem xool Alioune Badara Sakho xool rek gis benn xale bu jigéen rek ñëw ne ko kaay bombal ma sama gannaaw gi déedéet. nee na bu boobaa bu fekkee ne yow yaa ngi nekk ak sa soxna na soxna si daal di jël mën nga woo sa soxna mu fekk la fi ngay sangoo mu daal di jël benn serviette daal di lay nga tooyal ko mais serviette bu set wicc lay doon mu tooyal ko daal di koy bomb li nga xamante ni moom mooy sa ginnaaw bi mu jàppalee la ci ndax sa loxo mu nu faa yegg waaye bu fekkee sa loxo mën na faa yegg soxlaawul nag ngay woo ku la ko yeggalil moo tax mu ne gis nga bil min diil wa nahwi kal xable wa tawkiil bu la neexee nga daal di jël ab sagar wala nga jël buum l'essentiel mooy wala njàmpe bu xamante ni set na nga daal di ci bomb gannaaw gi ba mu set sunna yi nag mu ngi nii sunanuhu madmadatun xaslul yadayni bat an wal istinsaqu suqbul udnayn sunnay sangu nag mooy dangay gàllaxndiku daal di eh, raxas sa ñaari loxo yi bi ngay tàmbali moo ci tënk yi waaye aussi tamit nga def li ñuy tuddee al istinshaq muy nga saraxndiku ak fiiru bi yëpp day dugg ci biir waaye ak sa bën bënu nopp yi lii raxas yi nga koy raxas sunna la ci li nga xam ne moom mooy ci eh, sangu set acca ñu dem ci beneen kii bi léegi nag yi ñu sopp ci sangu set ñu soog a ñëw nag ci naka la ñuy defee sangu set yi ñu sopp gis nga ko ci biir sangu set sopp nañ mooy gis nga nga daal di tàmbalee ci raxas sobe bi sëy nga ak sa soxna ba pare def ngeen rapport sexuel ba noppi ndox mi génn na ci yéen kon dafa am sobe bu leen bu taq ci yéen sobe boobu taq maniyu la maniyu boobu nag tàqalikoo bi ngay tàqalikoog moom débarrassé wu ak suivure yooyu ba mu denc sa awra bu boobaa loolu nag dañ koo sopp ci biir sangu bi tasmiyatul wax bismillah balaa ngay commencé loolu dañ koo sopp tasniisu rasihi maanaam ndox mi soo ko jëlee ginnaaw bi ngay def jàpp benn benn dinañ expliquer balaa bu ñu jógee ci lii naka la ñuy defee sangu set bi raxas sa bopp ba muy ñetti yoon première ndox bi sotti ba mu tooy jëlaat beneen bi sotti ba mu teey loolu tamit bokk na ci yi ñu sopp ci biir sangu set taqdimu aadail wudui qillatu ma gis nga jiital cëri njàpp yi war a jiitu waaye tamit bat an bi aala nga tàmbalee fi gën a kawe hmm? daal di wàcc fi gën a suufe waaye beneen bi tamit mooy nga néewal ndox mi ndax yàq baaxul waxoon nañ ko fi keroog euh, beneen bi aussi tamit euh, nga commencé ndeyjoor loolu lu mata bàyyi xel la ay ca ñu dem mhm. jébu jéego ba pare ñu dem aywa gis nga fii mi ngi lay wax nag léegi naka ngay defee sangu set bi ci tableau bi gis nga nabda'u fil ghusli bi fardin da ngay njëkk raxas sa awra après nga raxas sa loxo waaye nag ci biir sangu bi da ngaa a maytu looy maytu mooy sa loxo yi tamit daal di laal sa awra kon soo sangoo ba pare kon gis nañu fan yee passé am ku ñu ko laaj benn oustaz bu ñu ko laaj mu ne sangu bi day yàqu sangu bi du yàqu soo sangoo ba pare sa loxo laal sa awra njàpp li mooy toj da ngay jàpp jiwaat waaye sangu bi moom ma nga fa yàquwul ba tey Euh, kenn du ko teg ci xel mu neex waaye diine des koy jàng ñu bàyyi ci xel baax a baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga dafa am benn saxaaba bu ñuy wax ibnu abbas dafa am benn waay bu ñëw fekk leen ñu toog waa ji di leen laaj neleen man kat damay tëdd guddi ma yëg ni sama tubay dafa tooy léegi nag ni sama tubay tooyee noonu dafay tooy rek te du arrêté léegi man nan laay def ndax damay sangu wala du ma sangu gaa yi ne ko noo yow da ngay sangu ji te nag loolu bu dalee nit kooku kenn exigé wu ko mu sangu day dem rek raxas awraam parce que tayu ko day génn saa su nekk waxoon nañ ko fi léegi nag bu boobaa Seyd euh, Ibnu Abbas ñëw ne leen xanaa xamu leen ni Iblis benn nit bu xam diine benn nit bi xam diine moo gën a tar ci Iblis que junni nit yoo xamante ni dañuy fanaane di la kon tey jàppal nii yow mi ñuy déglu di ñu seetaan benn xam-xam bi nga jàng ci diine tey tey nga xam ni ñuy sangoo set xamal ni iblis mi ngi xataraayu iblis mi ngi mer iblis mi ngi am lu ko metti day diis ci moom mu yëg ne tey am na jullit bu bees comme ni jullit di duggee ci lislaam ni amee jullit bu xam tey dara ci diineem iblis day mer day am lu ko metti torop waaye nag bu gisee lu mat euh, junni nit yoo xamante ni dañoo taxaw ñoom ñuy jaamu yàlla te jaamu yàlla gi ñuy jaamu yàlla àndul ak xam-xam iblis day toog di leen reetaan rek naan xool leen ñoom ñi ngi jaamu yàlla waaye xamuñu dara ci li ñuy def ayca jéego ñu dem <coughs> mhm. voilà léegi nag fii xam naa ni euh, mooy jëm ci li ñuy tuddee euh, démonstration bi kon gis ngeen ko al ay shar'i wufqa sunna muy sangu set lu dëppoo sunna ni ko yonent saa sallam jàngale kon gis ngeen tableau tableau bi mu ngi nii tableau bi mu ngi nii léegi sooy sangu set xooleel par numéro la gis nga waaxit mu ngi nii première bi yow miy sangu set moo xam da am régl règle bi dagg moo xam da am doom deretu wasin bi dagg moo xam da ngaa sëy ak sa soxna mani yu génn ak génnul ndax yonent bi saa sallam nee na idal taqal xitaanaani wajabal xuslu nee na li ñuy wax naan kuur gi dugg na ci gënn gi bu ñu dajee dafay waral sangu waa aw isa jalasa bayna shu'abiha al arbaa nee na nag ñaari loxo ñaari tànk fu ñu dajee ba roofoo yonent bi saa nee na sangu daf fay war maanaam li tax nag mu ne ñaari loxo ak ñaari tànk bu ñu dajee li mu ci namm mooy faw pénétration am su pénétration amee génn naa génnul mani yu génn naa génnul boobaa da sangu kon booy sangu lii nga war a njëkk def raxas sa ñaari loxo fii ngay tàmbalee gis nga numéro un un booy sangu set lii ngay njëkk a nga ko mu ngi nii partie bii gis nga. couleur bi orange yaa ngi gis nii un deux waaxid ithnain première ñaari loxo ba fii deuxième gis nga fii ngay commencer di raxas nii biir ak biti gis nga boo defee nii ci jumax bi xëcc ko nii ba fii xolo jumax bi ngay tracer ba nii léegi li commencer nii partie bii ba fii comme ni mu ko defee nii lépp ngay raxas biir ak biti biir ak biti lépp ngay raxas kon su may sangu set damay njëkk commencé raxas ñaari loxo ginnaaw bi ma yéenee yëkkati toj mi wax bismillah ma daldi raxas loxo yi ba muy ñetti yoon su ma paree ci raxas loxo yi ba muy ñetti yoon ma ñëw fii daal di dindi sobe bi muy commencé fii nii lépp ma raxas dindi sobe bi ba sobe bi set wicc li fi nekkoon yépp daal di deñ muy deuxième étape gis nga une deux léegi troisième bi fii la en jaune fii ci kaw bopp bi xam nga raxasoon naa loxo yi fii ba pare fii mooy un fii deux trois fii damay galaxndiku dugal ndox mi nii xam nga raxas naa sama awra ginnaaw biir ak biti set na sobe bi ci nekkoon moo xam ma yu la woon génn na bu fekkee jigéen deret bi dindi naa deret bi ba mu set amatul benn trace de sang bu fekkee ni ki wasin tamit pare pare naa foofu léegi nag ma daal di jël ndox mi nag daal di raxas li nga xam naa gàllax ndiku sama gémmiñ daal di jël ndox mi def nii sama bakken fiiru après nag su ma jógee ci loolu nag ma daal di gis nga trois léegi quatrième bi fii ngay ñëw fii ci bopp bi ah non troisième ah troisième bi gis nga jaune en jaune ba léegi ça continue troisième fii ma ñëw njàpp lay def njàpp bi un la après gis nga njàpp bi fii lay commencé gémmiñ bakken après bakken nga ñëw ci loxo yi maanaam kanam gi raxas nga kanam gi ba mu set après loxo yi ba ci avant bras yi gis nga ko nii nga raxas loxo yi ba nii soo paree nag nga jël ndox mi gis nga trois xoolal dafa def trois fii ci loxo yi ñëwaat trois fii ci kanam gi ba léegi pareegoo boo paree fii juste rek da ngay ñëw fii ba léegi ci njàpp bi lay la lay wax nga def nga pare nag daal di jël bopp bi def nii ndox mi massa soo massa pare nag nga jëlaat ndox mi sotti ci bopp bi ba bopp bi tooy xip xip ba dugg ci biir deru bopp bi ñu ne bu fekkee jigéen boo xamante ni karawam la mu létt ko aajo woowul muy firi létt yi l'essentiel mooy li ñu ko wax mooy na jël ndox mi dugal ko ci biir bopp bi ba ndox mi dugg ci bopp bi ba mu set wicc ba laal deru bopp bi léegi nag na ñëw quatrième moo ngi nii cinquième bi nag ah bi moo nekk ni en bleu ah, bu boobaa nag nga xaaj sa yaram bi côté côté ndeyjoor xaaj nii boo xoolee yàlla sax ni mu bindee doomu aadama dafa jekk lool yàlla si boobu moo njëkk xaral boppam moo ko moo ko njëkk def gis nga boo xaajee sa yaram bi gis nga gis nii nga koy toppee sa xaaju yaram yàlla sax yaram de parties la ko def gis nga nii li commencé fii ci jëbi wàcc nii ci bakken bi ñëw nii lii mooy xaaj bi ah nga jël partie droite raxas raxas raxas raxas raxas ba mu set waaye nag gis nga tànk yi moom doo ko booleegum ci jàpp bi nga jël partie gauche gis nga 5 bi mooy en bleu 6 bi moo nekk en vert muy l'autre partie nga xaaj beneen partie bi raxas raxas raxas ba mu set soo paree léegi lan mooy des après 6 septième en rouge mu ngi nii c'est tellement facile sangu set dafa yomb am na ñoo xamante ni bis bu jot nan la ñuy def. bu ñu séqeek seen soxna dañuy taal seen oto ñenn ñi comme ñi nga xam ne dañoo dëkk fu fu jege géej dem di sangu ci biir géej gi c'est vrai que boo ndoxum géej moom boo fa duggee nga sangu nga am yi nga ñëw sóobu fa daal di ragg sa yaram bi ba mu set nga am yéene sangu set di nga am sangu sangu ba day baax ndoxum géej soo duggee ci géej mën ngaa sangu set ci biir géej loolu kenn aayewu ko waaye nag li ngay sonnee dem ba ci géej ndeysaan da ngay dem fajar ay boo demee ay des ay 5 heures du matin 6 heures du matin ñi dëkk ci booru géej xam na ni ñuy wax nga gis nit day futteeku ba ni ko yaayam juree woon dem dugg ci ndox mi pour sangu set te boo toogee tey sa kër wala sax nga def tuuti yitte woo sa benn oustaz bu la jàngal wala tey jii nii moo tax nag ñu indi sangu set ci biir émission jeunesse et religion bu ñu kenn woowati naan damaa bëgg xam nu ñuy sangoo set demal ci biir ci leeral TV ci YouTube wala ci. Euh, seen plateforme yi dinga fa fekk nu ñuy sangoo set pour de bon nga xam ne sangu set nii la ñu koy defee indi nañ la tableau indil la image wax la numéro un numéro deux ba fi sangu bi di jeexee de grâce encore une fois jullit dafa war a am farlu ci xam lan moom mooy diineem kon bu ñu sàggan ba ñàkk xam suñu diinee di ñu dal kon pour résumer pour résumer ci ni ñuy sangoo set bi ci njëkk mooy damay ñëw bu fekkee ndox maa ngi nii ma dëngal raxas sama loxo gis nga raxas sama loxo ba mu set première étape mu ngi nii un première étape raxas naa loxo yi deuxième étape mu ngi nii lu sa xel naqari naqari xoolal deuxième étape mu ngi nii raxas naa nii deuxième étape ginnaaw ba ma yéene ba wax bismillah ma commencé fi raxas nii raxas biir ak biti ba sobe bi daal di set wecc deuxième étape troisième étape damay continuer njàpp li njàpp benn benn jël ndox mi dugal sama gémmiñ galax ndiku serax fiiru gis nga ma daal def lan raxas sama xar kanam mais raxas bi nay bombaale ba fépp set ndax euh, sangu farata bomb bi daf ci am solo gis nga ba kanam gi daal di mat kanam gi jeex na ma jël loxo yi raxas ba fii benn benn jëlaat ndox raxas ba fii benn jël ndox massa nii mën naa ko enchaîner ak nopp yi maasa biir ak biti ñi ngi doon jàngale nag doon wax naa ndox mi dangay jël dugal ko non déedéet lislaam jàngalewu lool loolu xabaabal la ndox mi boo ko jëlee dugal ko nii mu dugg sa biir nopp bi indil la infection déedéet lislaam du diine ëppal diine modération la dañ ne la jëlal ndox mi rek nga dugal ko ci biir nii nopp yi ba mu set wicc su nopp yi pare léegi nag xam nga da nga waroon ba ngay jàpp ba ñuy jàng jàpp da pare sa nopp yi foo jëm da raxas tànk bu dee ci sangu set dangay bàyyi tànk yi da mujjeel tànk yi léegi nag jàpp naa benn benn ba pare jël naa ndox mi dugal sama bopp bi ba mu tooy xib xib xib ba ci biir ba laal der bi léegi lan moo des ma xaaj sama yaram parti droite nii nii nii yépp gauche gis nga avant ak ci arrière nii sama loxo bii bu fekkee du mënul jot fii naa jël serviette daal di koy def nii ba mu tooy su ma ko jotul naa woo sama soxna wala sama boroom kër mu jël serviette wala koo xam ne am na droit mu gis sa gannaaw comme tey mën nga woo sa yaay mën nga woo sa mag mën nga woo koo xamante ni leer na ne la kii mën naa gis sa gannaaw nga jël mu jël serviette bi daal di la koy defal nii ba mu tooy su tooyee nag nga daal di continuer parce que gis nga raxas nga partie bii partie droite ba mu jeex nga jëlaat partie gauche raxas partie gauche nii gis nga raxas partie gauche bi partie gauche gauche gis nga avant ak arrière ba mu jeex su paree nag luy des tànk yi mbokk yi. tànk yi ngay mujjeel raxas tànki droite raxas tànki gauche sangu bi daal di jeex mbokk yi lii c'est tellement facile première loxo deuxième nga dindi sobe bi ba mu set troisième nga daal di gàllax ndiku serax ndiku dugal ndox mi sa bakken génnee ba noppi raxas kanam gi ba kanam gi set nga pare ñëw fii ci raxas ba ci avant bras bi ba fii nga ñëwaat raxasaat fii avant bras bi mais benn yoon nag parce que njàpp bi yëpp benn benn lay doon soo paree ci fii nag raxas nga avant bras yi ba pare léegi lenn moom moo la dese mooy fii bopp bi parce que gis nga nga ñëw fii nag ci bopp bi daal di massa def aller retour comme njàpp nga jëlaat ndox mi nag sóob ko ci biir bopp bi dugal ba mu laal der bi pare nga foofu nag léegi. li nga war a def mooy xaajal droite xaaj gos daal di matale li nga xamante ni moom mooy ndox mi ci yaram bi yëpp yaram bi yëpp tooy bu léegi lu lay dese muy tànk yi moom ngay mujjeel fii en rouge su ñëwee ba ci tànk rek mu daal di jeex bu ñuy mujjeel mooy raxas loxo raxas fii hmm, ba mu jeex nga pare ci loolu nga laxndiku saraxndiku fiiru tonam loxo ñaari loxo maasa jëlaat ndox tooyal ba su tooyee nga daal xaaj droite xaaj gauche soo xaajee gauche tànk droite tànk gauche kon loolu moom mooy sangu farata sangu set kon yal yàlla defal ñu euh, tawfiq euh, xam naa rek euh, di leen jox dig daje rek ba beneen incha allah ci beneen démonstration asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa Leral TV di télé bu bees bu andi ay émission yu bees tàq ngeen bëgg